bis bii leer taxaw si xamsatu bi leer na nañ leer na nañ te ñu foog ko toll mu toll. baraani baaxi min al amraadi wa kaba man ankara bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ci ndigalul sëriñ Muntaxa Mbàkke moom Cheikh Mamadou Bassir Mbàkke di xalif général kullu murit yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér ci teewaay ak kilifteefu sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Soy bu Mbàkke comité d'organisation màggalu xasida yi ñoo leen di yëgal màggalu xasida yi fas nañ ko yéene amal juróom ñaari fan ci weeru décembre 2024 ca Touba Jaalibatul Maraaxib daaray sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Soy bu nekk ci yoonu Touba Beleel wa sëriñ bi ànd ko yéene ànd ak kuréelu ahlu xasida yi di ci woon ak mboolem ñi nga xamante ne yëngu ci xasida ak nuñ ci mën a yëngoo moo xam njàngum durus rajas kuréel di sàkku nag teewaayi mbooleem jullit yëpp bàyyiwuñ kenn rawatina njabootug sëriñ Tuubaa ak mbooleem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall waaye bàyyiwuñu nag mbooleem njabootu seexi sëriñ Tuubaa yi kàddu yi nag xam naa dañuy soññ suñu bopp rek ni ko sëriñ bi déglee jëm ci bis bi nga xam ne yaakaar naa benn bis gën a ko màgg ci ci moom ndax moom koo xam xam ne Euh, yëngum yëpp dundam yépp bañ ko xamee ba léegi génnul xas-xasida yi ba sëriñ bi defal ko ci tawfeex yoo xam ne umpañul kenn ci kaw suuf te bokk na ci lay dëggal tawfeex joo ak la ko jëmmal nag mooy màggal gi nga xam ne moom la ñuy defal xasida yi te mel na ne moom la ko sëriñ jagleel bis xasida yi bari na lool waaye màggalu xasida yi mu na ne moom la ko sëriñ jagleel kon bis bi nga xam ne Euh, moom la koy defal liggéey bi fi liggéeyal sëñ Tuubaa bis bu ko ñor la moo tax képp ku ku mu am moo xam ab soppe nga moo xam wëllëre nga moo xam mbokk nga moo xam taalibe nga mi ngi la ciy soññ di ñaan ñëpp ànd ko moom màggal gi nga xam ne sëriñ bi mi ngi koy woteel ki taxoon ñu bind xasida yi moo ko njëkk màggal ndax yaa rabbana salli ala mun kasani xat xasala muhammadin mambajala xasa ay di wa sallim kon day mel ne sallallahu alayhi wa sallam moo njëkk màggal xasida yi bis bi mbokk yi ñu fas yéene koo tàmbali juróom-ñaari waxtu ci suba tëj ko nag gannaaw bu ñu jullee tàkkusaan ba noppi programme ba nag nii lañu ko fas yéene tëralee bu ñu xëyee tàmbali bés bi ci juróom-ñaari waxtu daañu ko ubbee ak wàcc ay kaamil teg ci nag kuréelu xasida yi teg ci njàngum rajas toftal ci zikrullah teg ci berle bu ñu jullee tàkkusaan ñu amal waxtaan wi nga xamante ne bi moom la ñuy tëjee jataay bi ñaanalante ñu ci woñ képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu